Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen ziara fu ngeen mëna nek ci biir réew mi ak ci bitim réew di leen ndokkel ci and ngeen di and ak seen grand prix Senico tay ji nak ñu fasiyene jakarlo jàkkaarloo yéen ci suñu juróom guddi di leen fatali ñi ngi ci final bi ndax kenn ko ne xam na ni demon nañ ci département yi ak région yi dem ci 798 dara def ay sélection ñi ca génn nak di 44 candidats ñoom ñoo nekk nii ci final euh, fan yëpp ngeen di ñu topp ba tey la euh, juróom-ñaareelu tour di leen sant loolu di leen gërëm di leen wax ni yéen a ngi ci ànd ak euh, Sénico Sénico di sénégalaise industrie commerce ñu ci ndokkeel bu baax ka nekk ca bopp ba di Cheikh Abdallah Dia ak ñi ko ci jàppale ñëpp niñ ko defee woon fan yi mbokk yi noonu lañ koy defee waat tey jii danañu àndaat ak juróomi candidat yi nga xam ni Euh, tirage bi génne na leen ndax it noonu lañ koy defee xale yi bu ñëwee ba toog kenn xamul kan moo war a jàng tirage bi su ko génnee nag ñu daal di koy fësal kon ki njëkk ci ñoom war a jàng tey jii mi ngi tudd Omar Gueye jóge ko région bu cees ki war a topp ci moom tudd Soxna Jaara Diop jóge région bu Kaolack euh, ki koy ñetteel moo di Mouhamad Dieng Mouhamad Dieng mi ngi jóge région bu Louga qui est le candidat numéro 4 de ci 7e euh, tour mooy nekk Mohamed Mahi Touré bu Kaolack waaye qui est suñu Cheikh Diallo bu région de Dakar euh, kon nous yi candidat région de Thiès ñu أزواجا يتربصن بأنفسهن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم فيما فعلن فيه والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء من خطبة النساء أنكم ستذكرونهن ولكن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا إلا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضةً ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حسبك قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل نقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يشكرون ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون ñu sant ko bu baax gërëm ko Oumar bi bokk ci ñi représenté région bu cees jàng na ba yeggal jury baa ngi liggéey ci ay notam li ñu ñaanal ay moroomam lañ koy ñaanal mooy yàlla na ko yàlla defal ndam euh, candidat ñaareel ci suñu guddik euh, septième tey jii macha allah moo di soxna Jaara Diop soxna Jaara Diop bokk na moom itam ci ñuy teewal région de Kaolack kon soxna Jaara Diop région Kaolack moom la ñuy teewal. وإذ أخذنا ميثاقكم وال وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماء أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء غافل عما يعملون حسبك ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين أنبأكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا خنزير أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا نهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ñu sant ko bu baax gërëm ko moom soxna jaara Diop euh, jóge ko région de Kaolack euh, jàng na ba yeggal moom itam ki nga xam ni nag moom moo war a topp ci moom di sunu candidat numéro 3 ci sunu guddik tey moo di Mouhamad Dieng Muhammad Jeng mi ngi joggé région de Louga lañuy fi dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama أتتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضه عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ والله سميع عليم اقرأ من أول سورة الحجر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 الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون وما اهلكنا من قريه الا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأخرون يأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا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 سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكر سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون حسبك macha allah ñu jaajëfal ko moom itam Mouhamad Dieng région de Louga moom itam jàng na ba yeggal kii topp ci moom nag mooy candidat numéro 4 candidat numéro 4 bi mi ngi ñu jóge ko Kaolack mi ngi tudd Mouhamad Mahi Touré moom la ñuy teewlu سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا لتكونوا شهداء الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب ممن ينقلب على وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم حسن قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم فآتهم وقالت تفتح لهم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون حسبك macha allah Mouhamad Mahi Touré moom itam jóge ko région de Kaolack jàng na ba yeggal duñ def rek kon lu dul jàll ci sunu juróomeelu candidat te mooy ki nga xam ni moo ñuy tëjal suñu juróom ñaareelu guddi tey Euh, te moo Cheikh Diallo région de Dakar ñu teewlu ko. ذلك بأن الله لم يكن وَالَّذِي وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولا ñu ko bu baax a baax Cheikh Diallo région de Dakar moom itam jàng na ba pare liñ koy ñaanal te ñaanal ko ñi jitu ak ñi nga xam ni ñoom ñëpp nañ ak ñi jàngagul moo di rek kenn ku nekk mérite nga ndam li te yàlla na yombalal bismillahi rahmani rahim wa sallallahu sonori le mot qui à 60%. Pour avoir le sodomiement, c'est sûr à 60%. Quand j'ai regardé comme une mère, j'ai eu un garantie de mon amour de 10%. Donc, ici, y a l'unité de dafa am ay éléments yu bari yu ci dugg mooy tax boromam passé bañ a am solo yi comme li ma waxoon démb dama ko bëgg a répéter pour ñu mën a comprendre bañ a am solo yi tekkiwul ne ne boromam moo gañ benn séeréer mën na ñëw fii mu bañ a solo yi dem seen kër mu ne papa wala suñu mbokk yëpp ñu ñëw ma maa jël fait 60%, 60% l'âme, 60%. faire descendre 40 40 il faut faire des parti, dans le deuxième nous, nit premier fait du jël prix bi tamit puisque il faut qu'on pourcentage par exemple le bon bon il a 95 ait puisque juróomi nit wala fukki nit suñu defee concours rek day am na ñëw premier lu mu bañ a man eh, fokk am am ko ñëw premier ku premier bi mën a jël même vingt pour cent deuxième bi jël quinze pour cent troisième bi jël quatre pour cent ñooñu mënuñu jël prix bi prix bi yi dafa am condition même seen soo nekkee premier na wala deuxième wala na fekk am nga yenn point yi du point bu ne donc fii xoolal nañu incha allah taala ñu ñëw premier mën nañu dem ba quatre vingt quinze ba quatre vingt seize ba quatre vingt dix sept yooyu mën na am waaye ñu wax ne ñëw premier kese doyul pour nga jël prix bi fokk nga am pourcentage ba lu bon bon nga egg quatre vingt quinze pour cent quatre vingt quinze pour cent donc ma répète Eh, eh, eh, kii atte bi dafa am ñaar yu jar sonori dafa am yeneen erreur yoo xam ne bii mënuñu ko defar sonori te duñ ko defar dañuy continuer fii gis ko defar ko mooy toog fii di jàngale xale bi te loolu du moom am na sëriñam bu ko jàngal ba mu a toog fii donc ñun loo xam ne nii leer day sonori day am ñëpp xam na ne diw am na sonnerie te am na sonnerie boo xam ne bii boromam day perte ñaari point mooy sonnerie mu def erreur ñu def sonnerie mu dellu si mu ñëw ma defaat erreur ñu wax ko boobu deux la parce nekk dafa am sonnerie bu benn la mooy boo xam ne bii mu def erreur ñu sonné ko mu ñëw ma defal boppam ma dem boobu benn la nii nañ koy calculer waaye appasono yi dafa am 40 pour cent erreur boo xam ne bii duñ ko sonné duñ ko avertir duñu rectifier dañuy noté fii ci papier yaam kese ñun ñu toog fii ku ne mooy notal boppam soo paree ñun ñu dajale ko so demee fale ci secrétariat dañoo d'accord koo xam ni kii moo gën a kawe nañ ko éliminer man na nekk dafa bëgg a faral xale koo xam ni kii moo gën nañ ko éliminer man nekk dafa ko toroxal xalé donc ñet yi lañu ñuy ñu diviser ko ñu diviser ko par trois moyen bi lañ ko jox. kon su ko defee mbokk yi li mo nekkoon juroomi candidat yi nga xamni tay tirage bi génné nako ci suñu 7e tour ñu di len ci jaajëfal di fàttali ni yéen a ngi ci andak Senico Sénico muy grand prix bu Senico ren jii di e édition. ñu tuddee ko nag cheikhul islam cheikh Ibrahima ñas ñu di ci ziyaara di ci sargal xalifa ba euh, cheikh Mouhamad Mahi Ibrahima ñas di ci nuyu itam di ziyaara imam ratib cheikh Ahmed Tidiane Alioune Cissé di ziar porte parole di ko nuyu te moo di cheikh Mouhamad Mahi Alioune Cissé waaye di nuyu itam cheikh Abdoul Malik ñas mi nga xam ni mooy responsable concours ak ña nga xam ne ñoo dëkkee pays ba yépp di leen xaar nag incha allah. bis bi nga xam ne ci la ñu war a sargal xale yi te moo di le 25 avril mbokk yi kon lii moo nekkoon jataayu tey bi ñu ngi leen di jox dig daje suba ci waxtu wi ak yeneen juróomi candidat asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Oh.